ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen char di leen bëgg bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm di leen wax na tey ñoo ngi fii ci wasaare làmb wasaare TV seen émission jàngat làmb tey ñu ñëw ci jàngat làmb boo xam te ñoo ngi ñëw ci diggante Modou Lo ak Ama bale ku ne gis na làmb ji taxaw na tey nag premier partie bi ñoo ngi defal Modou Lo ak Ama Baldé deuxième partie bi dinaa ci ànd ak Baye Djili ñu waxtaan ci palmarès su Pikine mbooloo saison daaw bi ñu génn ah première partie bi ñu ñëw ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ku ne gis na ne làmb ji taxaw na kii di Papa ko Nicolas moo ko taxawal jotoon na jox ki nga xamante ni mooy Ama Baldé avance kii di Modou Lo jotaguloo jot avance boobaak léegi ñu dem ba ci biir kii di Ligue Nicolas yoon teg ko loxo boobaak léegi làmb ji jotul am daaw ren saison bi tëj na mais daanaka léeg muti ji ñu bëgg a xam ba xam combat yi dina dina dina am ren waa wala déet jot nañ cee waxtaan ak ña nga xamante ni tam ci làmb lañ bokk. su njëkkee mooy euh, Modou Anta mu arène bi jóge fa dem ci Babacar Leewtoo ah Baye Balla moom tamit joxe na ci xalaatam ñu njëkkee ci ki nga xamante nii mooy Modou Anta ñu déglu ko li nga xamante nii jàngat na ko ci combat bi ak lim ci xalaat ñu dem te ñëw kàggu waa jërëjëf Ousseyn maa ngi lay di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay waaw Modou Anta sans frontière waaw Ousseyn comme li nga wax rek bu ma la doon defal jàngat ci combat Modou Lo Ama Baldé wala bu ma la ci doon defal benn taxaw seetlu mën naa ne dina yomb du yomb parce que ñaari mbëri boo dee xool seen coow depuis mbapat la woon depuis mbapat ñi naan Modou Lo ñi naan Ama Balde donte Modou moo ko jiitu tuuti li ko Modou jiitoo si mbapat loolu la ko jiitoo ci arène ba njëkk ko cee dugg ba tax na ñoom ñaar ñu dem ba seen coow kenn mënatu koo muñ si mbappat bi far ñu boole leen mbapat ban leen boole mbapat gis nga na mu demee kii di Modou am ndam si kaw Ama Balde continuer dem yoonam ba Modou ni mu duggee arène ba Ama ni mu duggee arène ñuy wërante si arène bi mënuñoo dajante si biir mënuñoo dajante nag bokk nañ ay adversaire umpule woone Modou Lo na ak Balla juuf daan ko jour boobu Balla Gaye moo bëre grand combat mook Eumeu Sène si la Modou daan Balla Diouf bul fàtte na Ama Baldé ba mu jógee ci defetam ak nees Balla Diouf la jël daan ko bul fàtte na Modou ak Ama Baldé bokk nañ adversaire benn adversaire boobu di Balla Diouf bul fàtte tamit Ousin kalaaf bi nga xamante bi nii moo fi taxawoon te Balla Diouf bokkoon ko Paul Maurice Tafa booy Bambara Modou hmm? bul fàtte ne Modou Lo daan na ca ki nga xam mooy Papa xam nga te bul fàtte ne 17 février bala ñu génn 2018 bu ma juumul wala 2017 ca la Ama Balde mu jëbëre ca la daan ki nga xamante bi nii mooy Papa Sow kon bokk nañ ñaari adversaire kii daan na Papa Sow kii daan Papa Sow kii daan na Balla Diouf kii daan Balla Diouf làmb ji dem coow li gën a yokku ba Luc Nicolaï décroché li nga xam ne mooy combat bi si bi mu ko décroché nag xam nga doon waaj a décroché waat yeneen combat far yoon woolu ko si lan ko arrêté boobaa léegi njabootu làmb am lu leen metti lool ñu koy ñaxtu di ko ñaanal di ko manifester woo fu ne ba yàlla dogal na bàyyi nañ ki nga xam mooy Luc Nicolaï waaye Luc Nicolaï ko bàyyee dañu dégg mu ne tekk deful dara waxagul dara amoon na fi combat boo xamante bi ni moom la ñëpp di xaar muy combat royal diggante Modou ak Ama Balde boobu ba tey nag déggagun lig ni ko laay wax te bul fàtte ne Ama Balde jotoon na avance te avance ba bul ne maanaam par exemple avance boo ko jëlee day am foo xamante ne bu fa àggee fi mu ne nii maanaam amee loto promoteur bi avance parce que dig ba ngeen waxante woon jot na wala passé na loolu mën naa dal ki nga xam mooy Ama Balde Modou moom mën naa ne kóllëre moo ko lié ak promoteur bi mais du avance boo xamante bi nii jot na ko kàddu nag jotoon na ko ba tax na instant yi nag may waxee yow Luc Nicolaï waxagul xamuñu ba xam Modou Lo Ama Baldé ba tey combat bi kañ la parce que bul fàtte ne Covid 19 bi moo téye gaa yëpp muy coronavirus bi ba tax na fi mu ne nii làmb ji moom làmb yi ñi ngi taxaw mais amul ay dat mais bëgg nañ tamit Luc Nicolaï génn wax ak sénégalais yi. si combat Modou Lo Ama Baldé si man di doon ñu mën ko xam bu baax a baax Ousseyn boo dee xool li ma la mën a xamal si gàttal komba bi combat bu neex la. combat bu neex la ay adversaire de taille te ma wax la benn affaire Modou Lo képp kuy jiital pied droit dafa aay si yow waaw Ama Baldé bépp mbër bu koy xaar moom it mu lay diriger day aay si yow kon combat la boo xam ne muy fausse garde garde normal Modou Lo garde normal Ama Baldé fausse garde ñaari piyo yu méngoo ñu kii gauche lay jiital kii droite mu nekk combat boo xam ne kenn ku nekk mën naa daan Ouzin waaw lu ne mën naa xew dóor mu daanu mën naa am daan mën naa am si biir bëre ardo mën naa am lu nekk mën naa am si combat bi si gàttal daal Ouzin loolu laa la si mën a tënkal komba la boo xamante bi ni combat bu neex la mais Modou mooy favori combat bi waaw xam naa ne daal ci gàttal foofu laa koy yamale di ziar ñépp mbokk internet yi suivre Wassare ñu ngi leen di bëgg di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax. tal Modou Lo mooy favori noonu la ko ki nga xamante ni mooy Modou Anta waxee mais boo xoolee dégg nee na fausse garde la ak garde normale bu combat bi gaawee mën na baaxee ci ki nga xamante ni mooy Ama Baldé su xawee diib tuuti wala ñu xaw a jàppante dina baax ci nga xamante ni mooy Modou moom ci nu mu ko waxee nee na mooy favori moom mi nga xamante ni mooy Modou Anta. borom arène bi point com ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di kontaan ci moom ci contribution bi nga xamante ni joxe na ko ci ci ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé maa ngi la nuyu bu baax a baax moom ku baax la amul benn problème bu ñu fa jógee tamit dañuy xuus dem seet ki nga xamante ni mooy Babacar Babacar borom Leewtoo maa ngi koy nuyu bu baax a baax kàggu ñu dem déglu Babacar te ñëw. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk wasaare TV maa ngi leen di bëggee di leen ziar waa di am may dégg fii rawatina internet yi di nuyu équipe yëpp ñoom Fatma Ousin. Bachir ak Amady gars yi fa nekk yëpp bëgg naa leen waaw di ñëw nag ci li ma laaj si mbirum Ama Baldé ak Modou Lo seen combat mais bala ma ciy sori rek damay sant yàlla ñaanal yàlla lit Nicolas mi nga xam ne moom moo initié boobu bés yàlla na ko yàlla gën a aar xam nga may ko talak fekke ba mu mën a tëgg jooju làmb parce que itam loolu la ñuy doon ñaan di gërëm président Macky Sall mi nga xam ne moom moo ko gracier ndax li comme li ñuy wax rek daa bokk ci réew mi bokkin bi nga xam ne nii defe naa ne mun na am dafay ëpp solo parce que bu baax a baax la c'est impossible parce que olof da koy wax buri mantaan ma cum len te ren corona bi moo ñëw taxawu nit ñi sëkk ba nga xam ne nii am na leneen les leen tal lu dul tëgg làmb xanaa kay ñaan yàlla mu jeex ñu jëm saison deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un ba mën a def boobu làmb loolu la ñuy ñaan yàlla loolu moom ñu ngi koy ñante te am nañu yàqi ne suñu borom bi dina ko defal ndax moo ñu ñu ñaan ko mu may ñu waaw ñu sant ko mu dolli ñu daal waaw waaw bu ma ñëwee si combat bi si ñaari mbër yi ci seen taxawaay ci làmb bu dee favori dama naan Modou Lo mooy favori parce que c' est le roi des arènes ba pare ëppale ay combat Ama Baldé te tam yaakaar naa moo ko ëppale ay ndam yaa ngi dégg jiitu ko tuuti ci làmb dont ay génération lañ laalante nañ ci mbappat ak yooyu yëpp am na waaye génération lañ rek parce que ñoom ñëpp ñoo toppante yaa ngi dégg te magante bi ci seen diggante taxul mu bëri favori nag nekk tekkul ne yow da ngay gagné bés bi wala da ngay gagné combat bi noonu parce que ki mu ko seqal muy Ama Baldé bu ma jëkkee ci moom daa nekk mbër mu nga xam ne nii Ama xamul lu mbër am xamul lu mbër indi xamul moom la déedéet moom li mu soxla rek. parce que loolu la ñu gis ci ay combat am Ama soo abit soufflé da lay fekk fi nga ne moom def li mu bëgg def. mbër nag suy bëree noonu yow sa talent ak sa doole ak sa xam-xam mën na balaa nga ko exploité ci kawam mu daan la ba jéggi la dem te bëri na adversaire yu mu taxawoon noonu maanaam da lay sëkkamtal da di xeex bëri da lay sëkkamtal boo xoolee ñàkk na ci combat mais li mu ci am ndam moo bëri te yaakaaru mu wàcc wowu yoon kon defe naa adversaire la bu nga xam ne même bu dee outsider la même boo dee favori ci kanamam ku war a ku war a jox cër la waaw yaakaar naa itam loolu mooy li nekk te defe naa ne ñëpp ñiy suivre Ama Baldé depuis ba tey gis nañ ne que mbër la nga xam ne nii ah waaw même dañ naan tegal ko tànk gauche ak tegal ko tànk droite ama daan daan nañu teg droite daan nañu teg gauche loolu day am yaa ngi loolu moom am na parce que li ma la wax rek du xaar kenn ci li mu bëgg a def moom bu ñëwee day def li mu bëgg a def nekk na xale boo xam ne loolu bokk na tey ci li tax génération bi mu bokk mu gën ci fël yaa ngi dégg jëkk ci yegg si ci benn niveau parce que audace moo ko may lu mel ni ki doon ak itam wóolu li muy def te loolu bokk na ci nit ki nga wóolu sa bopp gëm li ngay def gëm li nga indi làmb da ngay gëm li nga indi yaa ngi dégg moom noonu lay doxee ba tax rek mu yegg si mu yegg si loolu tamit moo ko may sax tey mu ñëw nekk xale bu nga xam ne moo njëkk bëri ak roi des arènes ci génération loolu mérite la pour Ama Baldé mbëral bu nga xam ne daal mu jara bàyyi xel mu jara jox cër la mais dafa am adversaire boo xam ne tamit adversaire boobu muy Modou moom maanaam ak mbër moo mën a doon pour nga ébranler ko wala nga jaaxal ko ci làmb day jafe par rapport ak si communication par rapport ak ci biir bëre parce que li tax mooy noonu la ñu doonte perte na ay combat ci làmb mais terewul moom tey itam fi mu yegg si li dal Ama koo dal parce que comme li ñuy wax mën nañ ne du bërëm mu rëy wala gis nañ ne tey fi mu yegg si gëm-gëmam ak audace am ak sérieux moo ko fi indi mais mbër la moo xam ne bésam it du ko rabax-rabaxee da koy teg ci yoon moom la ma naan sëpp day sëpp adversaire am nii di la xool xool kañ ngay jóg boo jógee nangam sangam nu mu lay intercepté moom noonu lay bëree Modou boo brisé ci sa kaw ci ci kawam mën na laa daan te bis bu jógee tamit ñëw ci sa kaw di brisé mën na laa daan kon bëri la mu nga xam ne mu jafee bëri la Modou Lo adversaire bu jafee-jafe la te gis nañ ne tamit ci ay adversaire am ñi ko daan boo xoolee ñoo ko loon lars ko mais ñi mu faral di tollool pour ñu daan ko day xaw a jafe ne ma nag mënuñu ko daan parce que lamb moom euh, waaw fekk yaa ngi ci rek lépp a mën a ne mais nekk na combat boo xam ne daal li ma mën a xam moom Ouzin mooy lamb ju doy doy doy waar la lamb ju méttee méttee métti la nar a parce que ama lambam day gaaw te olof lu waaye di def mu jig ko lu ne ah waaw naj na ca continuer te ama lu gaaw moom da koo jik ci lamba loolu moom moom la ñëpp gis Modou Lo nag lambam itam boo xoolee combat yi mu xoos yëpp yàggal ko da caa waaw bu ca nekkuloon favori sax da caa mujj am ndam kon moom itam man na combat bu yéex trop trop trop bëri na sax ay combat yu gaaw ci début carrière am mais nekk nañ ñaari mbër yoo xam ne daal li ma la mën a xamal mooy ah yar yi ñaan yàlla daal corona bi jeex li ni ko lay gën a ni si jàmm am solo ñuy ñaanal yàlla rek ñuy ñaan yàlla bokk ñu fekk ko tal ko que le meilleur ñaari mbër la ñoo xam ne daal ñu am mérite lañ ci làmb parce que yàgguñu ci làmb te marqué nañ ci seen empreinte ndax tey fi ñu nekk seen liggéey ak seen sérieux mu leen fa indi ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm si àddina bi bi dem di bég ci équipe xamante nii kii di Babacar noonu ñaari mbër la yoo xamante nii seen jàmbaar ak seen jom ak seen fulla moo lay yëg si fii ñu yegg si mais boo ko déggee neena ki nga xamante ni nii mooy Ama Baldé combat bu gaaw combat bu rapide mooy ki nga xamante ni moo ko arrangé moom Ama Baldé ak méritam ak jomam moo ko yegg ci génération bi mu toll mu bëri roi des arènes loolu chance am la waaye kii di Babacar ni mu ko waxee mooy yàlla na fi corona bi gaaw jóge ba làmb ji yegg si jàmm ak salaam ñu bëri ko nee na làmb ju mettee métti lay nekk ku yaakaar na day yomb yaa ngi nax sa bopp Babacar maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm bu ñu fa jógee tamit dañuy dem xooli ki nga xamante ni mooy Baye Baye Balla Mboup boom BMTV ñu dem déglu ko moom tamit xool li mu wax li nga xamante ni ci làmb la diggante Modou Lo ak Ama bale kàggu àcc bisimilah. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu réew mi di nuyu biti réew di nuyu waa làmb gépp képp kuy déglu sunu kàddu rek. wala nga nuy seetaan partout dans le monde ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay di leen wax déwén si baa wi di di di jaale tamit waa Tëngéej ci tiis yi nga xamante ni moo leen dal ci sunu rakk sunu xarit ah muy Papa Yade numéro 2 di leen ñaanal yàlla sunu borom yàlla ñu yàlla may xol buñ ko muñee ci barke yonent bi Ouzin borom wasaare làmb maa ngi lay nuyu tey am naa mbégte mu rëy ak contentement mu rëy rëy ci dalal bi nga ma dalal ci biir wasaare rawatina question bi nga xamante ni moom nga ma posé pour ma joxe sama contribution ci diggante Ama Balde ak Modou Lo Ama Balde Modou dafa nekk combat boo xamante ni combat la combat boo xamante ni àdduna ñoo ko bëgg combat boo xamante ni réew mi ñoo ko bëgg combat boo xamante ni amateur yi dañ ko bëgg supporter yi dañ ko yàkkamti ndax combat la boo xam ni Ama Balde daf ko yàgg bëgg tey jamono di dox di dox Ama Balde bëri fekk ay champion daan leen bëri fekk ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Malick Niang daan ko bëri fi ak ki nga xamante mooy guy gi daan ko bëri fi ak ki nga xamante ni moom mooy tafaatin daan ko bëri fi ak zos daan ko daan fi ay champion moom Ama Baldé ci tournoi TNT boobu mu génn moom moo ko def VIP ndax guy gi dafa fekk ak ki nga xamante mooy zos ak tafaatin daan tafaatin tafaatin moo ko yóbbu ci VIP yi kon Ama Baldé bu bëri Modou Lo jaadu na waaye Ama Baldé mi ngi bëri combat bu miti combat bu doy waar combat boo xamante ni combat bu nar a metti la ci moom li tax mu nar a metti ci moom ki muy bëril champion la ndax sama doyen daan na wax naan guddul ni ñoom tolul ni ñoom rëyul ni ñoom waaye moo leen jaaxal ñoom ñëpp Modou Lo Lac de Guiers Modou Lo Gris Bordeaux Modou Lo Eumeu champion yooyu mu bëreel ku ci ne mu won la li nga xamante ni moom la mëne ci wàllu làmb ci fitam ci jomam ci ngorom moo tax Ama Baldé mi ngi bari kombaa bu metti waaye combat la boo xamante ni xëy na fi mu am na foo xamante ni dafa fekk làmb am na fu mu koy jëlee waaye am na fu mu mën a yóbbu làmb combat bu doy waar laa lay wax Ousin wasaare waaye combat boobu ku la ni ñaar ñii diwa man ah day wax lu ko neex rek waaye combat la boo xamante ni ku ci ne mën ngaa daan sa morom ndax ku ci ne champion nga ku ci ne ñoom ñaar mbër nga ñaari mbëree daje du ñaari bëri ñaari mbër kaamil waaye Modou Lo na ñaar moom bëri la mbër Ama Baldé tamit bërikat la mbër la ñoom ñaar daal incha allah yàlla nañu yàlla yóbbu ca combat boobu ak jàmm ak salaam que le ndax combat bi dina am saison bi 2020 2021 yàlla rek moo xam loolu moom mbiru sunu borom la ndax ku ne xam ne promoteur bi dafa nekkoon ci ay tolof tolof waaye yàlla mi dara teewul sunu borom dimbali nañu ba génn ci fi bërëb bi nga xamante ni fala la newoon ndax dina def le tout. pour combat bi am ci saison bi loolu moom yàlla rek la soob moom ñu ngi koy ñaanal daal di ko encourager bu baax a baax moom Luc Nicolaï Enco ndax yàgg naa bëgg réew mi ci stade bu ne Iba Mar Diop Demba Diop Léopold Sédar Senghor ci bés yu mag yoo xamante ni sénégalais yi dañ ci bëgg te Luc Nicolaï moo ko taxawaloon kon ñu ngi koy encourager bu baax a baax di ko xamante ni dellu sil doomu réew mi la wax dëgg yàlla am na nu mbégte daal Ousin vraiment combat bu doy waar nga ma laaj combat boo xamante ni daal li ma ci mën a wax bari na waaye xam naa ni affaire bi dañ koy tënk rek ndax li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi waaye ñaari champion yi daal ñu ngi leen di ñaanal wér ak wérle Ama Baldé jot na avance Modou Lo jot na avance loolu après xam naa ni peut-être Modou rek moo ci mën a indi leeral mais Ama Baldé avance am moom leer nañu yaa na yàlla defal ñëpp jàmm Ouzin borom Wassare <laughs> mais kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax waaye c'est vrai que nii lu dul jàmm jàmm ko gën yal na yàlla def jàmm ci biir réew mi def jàmm ci réew jullit yëpp def jàmm ci àdduna bi pandémie bi nga xamante ni moom moo laxasu ci àdduna bi yal na ko fi yàlla jële ci daraje yonent bi yàlla na ko fi yàlla jële yàlla delloo si jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën happiness is when we happy together mbokk yi lu ma ci wax loo xamante ni lu neexul nit la rek na nga ma baal dama doon wax sama xalaat rek ndax nit ku dul juul juum amul mag dina juum ndaw dina juum kilifa dina juum surgaam dina juum yàlla buur bi képp moo dul juum yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm lu ci jub nag ñu xam ni sunu borom la moom mi dara tuwul moom mi amul benn morom Baye Balla Mboup la borom FM senegal ak BMTV maa ngi leen di béggee béggee. dégg ngeen ki nga xamante ni mooy Baye Balla ni mu ko waxee nee du ñaari mbërkat mais ñaari mbër ñooy tase nee na ñaari mbër kaamil ñoo na jëflante bés boobu dégg ngeen ni mu ko waxee. est-ce que làmb dina amam du am kenn xamul nañ ko bàyyi ci loxo yi ñi nga xamante ni ñoo ko tëgg ba xam làmb dina amam du am ndax làmb ju metti lay nekk làmb joo xamante ni amateur yi dañ koo soxla supporter yi soxla ko ñaari mbër yi ko war bëri ci boppam dañ koo soxla ndax dafa war a soxaliwaat làmb combat boo xamante ni combat royal la ndax diggante pikin ak Parcelles yàgg nañoo jëflante ndax boo xoolee kii di Modou Lo moo mujjee daan ki nga xamante ni nii mooy Eumeu Sène jël roi bi ci moom kii di Ama Baldé mosoon naa toog wax ne Modou su demoon ba màgget bëriwuñ mu yor beeke sax dinaa nangu beeke bi daan ko ak moom ndax ñoom ñaa am na fu ñu jot a jaar Ama ne dama nekkoon xale nekk mun mbër dama koo séen ci digg géew bi rek ma àbb sër daw dugg mu daan ma nangu naa loolu waaye dama ko bëgg xamal ne kii di xale màgg na Modou Lo moom tamit na ko ñëwal pare naa bëre ak day nekk loo xamante ni dafa may neex ndax làmb joo xamante ne làmb ju neex a neex a neex la yow kàggu làmb ji yàlla na jaaw gaaw sotti lig ni ko laay génnaat taxalaat yeneen yi nga xamante ne bébatoon na ko nekkoon na ci xelam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu mu jox ñu ko ñu dund ko daal ndax bokk na ci li nga xamante ne day dekkal làmb deuxième partie bi nag di leen wax ngeen waaj man ak bàyyi jiili la ñu waxtaanee li nga xamante ni nii mooy bilan Pikine mbooloo waa Pikine mbooloo ku ne xam ne ne saison bi daal jot naa desee kii mais daal di leen wax ngeen xaar ñu deuxième partie bi ñoo ngi ñëwaat maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm sama caméraman bi di wax ne lu mu kaadewul rek dafay xaw a des tuuti maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak ñi fi teew ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm